asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur u Equivox TV dama leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen ku ne xam ne nag tey ñoo ngi si aljuma di 21 mai 2021 ñu ñëw comme ni ngeen ko xamee rek ak li nga xam ne ni moom moo fi tukkee ci ay xibaaru làmb rawatina ci journaux yi li ñuy def nag mooy bàyyi leen ngeen dem seetaan revue bi ñu dellu si waat si plateau bi ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 21 mai 2021 dañuy jokk yéen ci likaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëtam mu njëkk moom la mu ca xëy fasal wala ka mu ca xëy fasal kenn la mooy càppaacoli bi do di ka nga xam ne moom moo di Boy Niang bu Pikine yëglikaay bi nag moom nee na Boy Niang daal boo bëggee dégg-dëgg mu ngi nekk ci digg diggante li nga xam ne ni entre le marteau et l'enclume daal loolu la yëglikaay bi wax ndax nag fa mu dugg la jàpp ne xat na lool lool lool ndax boo xoolee diggante ak tafaatin ku ne xam na ne loola yombul te du doon lu mas a yomb ñu ne déet waay Boy Niang yemu ca dem jëli jiwaat ball Balla Gaye numéro 2 moo tax yëglekaay bi jàpp ne daal diggante ñaari diggante ya booy ñang dugg fas ko yéenee baagante moom nag moo xëy tey wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom mook tafaatin ñoo bokk bawal di Fallou Ndiaye yëglekaay bi xëy na tey ñëwal ñu ci moom ak mbër ya nga xam ne ni daal tëgg na leen bokk na ci combat boo xam ne ni combat espoir boo xam ne maanaam amateur làmb ya koy xaar muy ka nga xam ne nii moom moo di tafaa aada faas ma nekk fa nga nga xam ne ni moom moo di ca Fass Benno yëglikaay bi ne nag maanaam fàllu am na ab datam pour kañ le 8 août daal la ko fas yéene tëgg fa nga xam ne nii moom moo di ca stadium Iba Mar Diop yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni tamit am na ab dat mu ki nga xam ne ni moom moo di Mohamed Diop Mohamed Diop nag moom moo jiite Diamonds Production mel ni ki moom itam combat bu mu tëgg beneen combat espoir la boo xam ne tamit askanu làmb ñu ngi koy nekk mu dox ci diggante bébé julde école de li Cheikh Mbaba ak Youssou Ndour école de lutte Balla Gaye yëglikaay bi nee nañu date ba le 27 juin la fa muy amee tamit ba tey daa mel ni daal wala boog fa muy amee ci lu leer moom moo di stadium Iba Mar Diop yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu yëglikaay bi nag nee na ki nga xam ne nii moom moo di Matar Ba di ministre bi ñu jéggi bi ñu dénk réew mi maanaam Iba Mar Diop daal ubbil na ko nag waa làmb ji ngir nag xam naa ne daal fexe ba arène national ba gën a noyyi ndax nag fi mu nekk ni programme ya woon na fa lool xat loo ba mel fa ni tulli woon xëy na fa nga xam ne ni moom moo di stade ba ñu ubbi ko ngir nag ña nga xam ne ni ñoom ñoo di waa làmb ji fas fa yéenee jëmale yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey ci biir sunu làmb mel ni ki nag ki nga xam ne nii moom maanaam moom moo di Sambare Jonn ma nga xam ne nii nag moom moo jiite CRC bu Fatick daa mel ni que nag ba tey daal yokkaat nañu mandaam de ba 2022 daal gaa yokkalaat nañ ko ko yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy jox nu boobu information CRC bi mu jiite nag wala làmbi Fatick ka nga xam ne nii moom moo fa di entraîneur di ba fa géey maanaam daal objectif ba mu am ci drapeau chef de bi nee na benn objectif kese la maanaam daal fexe ba jël drapeau bi andi ko Fatick ndax jàpp na ne loolu moom ñoom lañ tàmmoon ñoom waa Fatick di ko def waa Thiès moom maanaam seen cinq litres tànn nañ leen ba pare yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci ak regroupement ferme boo xam ne daal tëju la goo xam ne depuis démb ñu ngi ci ñoom waa Thiès bokk na ca nag seen cent vingt kilos moom ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moom mooy Abdoulaye Wilane Ndoye ñu gën koo xam ci Libidor bu Kayaar yëglikaay bi dikkal nañu ci loola yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom tamit boo bëggee dégg-dëgg daal maanaam yëglikaay bi ñëwal nañu ci moom muy Ibou Ndiaye ëbbali ak semaine bi nga xam ne ni daal wala boog semaine beenu génne Ibou Ndiaye daal bu bëggee dégg-dëgg moom ah la wane na ca boppam de moom ëbbali quatre drapeaux yoo xam ne daal gagné na ko ci ñeenti fan ak deux millions yoo xam ne dugal na ko ci poosam mel ni ki nag Ibou Ndiaye Obali daal boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi le type de la semaine la xëy tey wax ko wala moom la ko tuddee ba tey bu nu continuer ci wàllu lambi simple jooju ak drapeau chef de l'état waa Sédhiou tamit al maanaam soo bëggee dégg-dëgg seen cinq ya nga xam ne nii ñoo fas yéenee défendre couleuru Sédhiou moom ci drapeau chef de bay amee ca Kaolack daa mel ni ñoom itam tànn nañ leen ba pare yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom sunu làmb ba tey bu nu fa jógee nag record la ñuy dem record nag moom kanu fay fekk du kenn ku dul ka nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg ak guy gi yëglikaay bi nag xëy na nu xamal ci xëtam mu njëkk daal wan ñu leen guy gi ak am koppateem rëg ak am kabam ku nekk tee sa micro wala sa mic bu la neexee ñu nekk nag moom jàkkaarloo bu njëkk boo xam ne fas nañ ko yéenee def ci dimanche ji nga xam ne moom la ñu jëm vingt et une nga xam ne moo di ca TFM waaye yëglikaay bi na la ca nar a neex ca nar caa bees mooy Malick Thiandoum ma ngeen xam ne xamoon ngeen ko mu nekkoon ITV te jóge fa nag dem TFM nga nga xam ne Youssou Ndour ko moom maanaam bés boobu nag mooy premier wàccu Malick Thiandoum ak micro TFM ci wàllum làmb muy face à face bi war a dox ci diggante guy gi ak ka nga xam ne moo di rëg-rëg kon daal fi mu nekk nii moom ku yebo xaar te xam ne moom boo sàgganee da nga déggate ay tubaab ak ay baati olof yu leer nañña nañña nañ bu dimanche ak Malick Thiandoum ci diggante guy gi ak rëg-rëg di ab jàkkaarloo boo xam ne daal yëglikaay bi record xamal nañu dey maanaam li am des daal maanaam jàppal ne kon samedi dimanche lay doon vingt et une heures lay am yëglikaay baa xëy wax nu lu mel ne ki noonu feneen foo xam ne ni ñoom mbërë fa xëy di tëkku moroomam mbërëm moom moo de ca Equivox TV ka xëy di tëkku waate nag du kenn ko dul alias biram ka muy tëkku mooy caatu ngéwél nee na maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex te fit moom deesu ko wax sama digganteek moom ndax man ku ne xam na ne farba laa dëkk te foofa kenn du fa ñëw di jaay fit nee na lu mu ci mën a doon daal maa ko këpple ci làmb te bu buñ ca yeggee lëngu ko yóbbu ko dong lay mujjee ki mbokkam maanaam alias biram nee na day daan te bu ca jógee Malick Niang la soxla loolu ku ne xam ne ne date ba le 9 juin la ak Vox Arena mel ni kon daal fi mu nekk nii làmb ja sàjj na bu baax a baax a baax a baax waaye li am ba des daal maanaam dañuy balu ñëpp àq tey ndax nag tey la aljuma di baal ñëpp àq di ñaan yàlla jàmm yàlla na ko yàlla def Sénégal gomis kon dégg ngeen loolu moo tukkee tey ci li nga xam ne nii moom moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi waa comme ni ma ko waxee rek dañ leen di balu àq rek di leen baal di ñaan jàmm senegal di ko ñaanal ñëpp di ko ñaan si àddina bi comme tey la yowmal jumaa di bis bu sell si bis yi xam nga fu waaye nekk rek di ñu bégg di ñu seetaan amuñu sa fay encore une fois ñu ngi lay jéggulu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne tamit yéenay téléspectateurs yi ñuy topp à travers Equivox TV di xool li ñuy liggéey mu mel ni ki amuñu seen fay tey nag bu ngeen gisee plateau bi nu mu demee baabaka ak Ami Diouf jigéenam Ami Gaye Ndiaye ñoo fi daan taxaw Ami nag tey ba tey dafa am empêchement moo ko teree ñëw mais bon comme li olof di wax rek bu yoon jeexul waxasul di jeex prochaine fois incha allah bi di ngeen ko gis du mën a ñàkk daa euh, bu ñëwee nag comme ni ngeen ko comme noonu ñu ko waxee wala bokk noonu ko yëglikaay bi xëy waxee moom sunu làmb ci ne booy Niang maanaam moom suñu làmb moom mu xëyalul ci xëtam mu njëkk dafa nekk entre le marteau et l'enclume loolu maanaam mooy diggante bi mu dugg maanaam xataay ga ak na mu nar a jafee yëglikaay bi suñu làmb mu xëy indil ñu lool parce que Boy Niang ku ne xam na ne digganteem ak tafaatin taxaw na ci lu leer nañ kaka taxawal di Pape Thialis fay waaye bañ nekkee sa boobu combat di ko wax ñu ne dit ne waaye ñu xëy gisaat booy Niang jëlaat beneen avance avance su kan la jël Balla gay numéro 2 booba combat tamit mu mel ni Gaston mbeng moo fa jaar taxawalaat ko kon yooloo tax yëglikaay bi jàpp ne mu ngi nekk diggante euh, entre le marteau et l'enclume muy diggante boo xam ne ah diggante la boo xam ne moom kenn du ne dafa yomb moom booy Niang moo ak estafam xam nañ ne fi mu dugg yombul moom Boy Niang xam na ko mais nag àddina lépp lépp euh, gomis ay risque la parce que tamit lamb moo tëdd noonu Boy Niang xale la boo xam ne dafa nekk ci war a progresser ndax boo xoolee bi mu commencé nekk xale ñëw si lamb di bëri petit combat yi ba ñëw si ay grand combat ba commencé di évoluer ku ne gis na ne wane na boppam ba yàlla dimbali ko tey mu bëre ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy mbër yu mag yi mën nañ ci cité ku mel ni Lac de numéro 2 ñàkk combat ba par recours daan fi guy gi daan Sa loolu defe naa boo ko defee tey ci làmb defe naa nag ku daan guy gi ak ah daan Garga Mbossé ñàkk sa diggante Lac de ci ay ci recours defe naa ne tey am nga droit nag jël Tapha Tine am nga droit jël Balla Gaye parce que nag ñooñ defe naa ne olof ne na ku bëgg akra da ngay ñemee kaani moo tax xam naa mu dugg foofu làmb nag noonu la tëddee boo du risqué moom pour nga dégg daal dina jafe lool xam naa ne loolu xam na ko ñi ko encadré xam nañ ko moo tax ñu dugal ko foofu te booy ñang itam euh, xale la ci làmb macha allah waaye ndam wax dëgg yàlla boo ko xoolee ci organisation wu bëreem ak nu muy bëree ak nu muy doxale di nga xam ne ah xam na li muy def te itam ñi ko yor fi ñu koy awale baax na parce que tamit doone ñàkk na encadrement loolu moom doo ko wax ndax itam euh, doxalinu làmbam ak ni muy déroulé ay kombaam loolu lépp day feeñ ci biir làmbam parce que ñi ko wër euh, du mën naa sa bañ a cité papaam ndax papaam moom mooy way juru booy Niang mais mën naa cité Bourkhane wàdd mën naa cité Cheikh Ndiaye boxeur ñooñu rek boo leen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xamuñu leen ñu ngi ci ginnaawam topp ko defe naa loolu rek dafa doy encadrement moo tax tey xëy na mu dugg ci lii nga xam ne nii moom mooy ñaari combat yooyu mu seq kook ñaari ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla ku ci ne ñàkk nekk coomo moo tax nga yegsi fi nga yegsi ndax tafaatin kenn dul ne bu yomb la ndax ku bëreeg Bombardier xeex moom xeex bu méttee mét yóbbu ko ardo gañe ko xeex bu tar Bombardier kooku ku la ne du mbër dalaa wax lu ko neex rek gañe Elton gañe yu méttee mét xeex ak moom itam yóbbu ko ardo gañe ko ci combat bu tara tara tara tara tara tar ak boobu Elton ni mu meloon daan Abdou Diouf daan cek ci jamono yooyu bërki dem nga mujj ci Yékini Junior jël bu rëy ba mu ko daan ah kooku itam adversaire de taille la Boy Niang am tafaatin di ko xam ne moom tamit wax dëgg yàlla macha allah liggéey ak bëgg lu muy def moo ko bi mu yegg si ba bokk tey ci ñi nga xam ne dañ leen di citer comme des VIP de l'arène sa tamit lu mu def la ki ci muy Balla Gaye numéro 2 moom tamit defe naa ne ku ne xam na ne ah euh, des fois sax di nga koy di ngay faral di wax ci moom ñi ñi amul dégg-dégg dañ naan danga far ak moom te fekk na or ko loolu mais dafa am loo xam ne manaam nit ki su ko defee xam nga Messi tey li muy def ci bal wala Cristiano Ronaldo mënoo wax lenn lu dul li ñuy def ci bal booy wax ci seen mën a football ak fii ci seen seen liggéey Balla Gaye 2 dafa am lu mu wane si làmb bi mu duggee làmb ak léegi 2005 la ñu ngi 2021 mais dégg na fi roi des arènes def fi loo xam ne nii ci ay combat daan fi adversaire yoo xam ne vraiment làmb mën nga ne fa la mën a yem ndax Modou Lo mënoo mënoo ko daan aller retour daan Tapha Guèye daan Baboy ci li ma mën a yem sans compter yi des bàcc seerax ca jamono yam koy daan Saalum Saalum début Papa Sow waaye bi doy waar mooy diggante mag Yaxya Jóob Yékini ah <laughs> loolu loolu c'est autre chose Yékini boobu ñi ko ñimee jël bariwul mu mu affronté ko bëri moom bëri bu métti Demba Diop daan ko nekk roi des arènes kon defe naa Boy Niang adversaire yi mu am moom xam na ne xam na adversaire yu baax et puis yu def tamit ay choix yu baax la parce que ñooñu tey bu ca génneeg ndam ah kenn dootul ne booy Niang lii wala laa te it nag risque moom moo lay tax a yegg fa nga jëm kon làmb jaa ngi noonu yàlla nañ yegg ak jàmm ci combat yëpp te mu am que le Fallou yi ngeen xam ko borom Ndiaye production moom tamit dikk ak combat bu neex pour le 8 août incha allah rabbi yàlla nañ ko fekkee tatal ko stadium Iba Mar Diop la ko fas yéene tëggi dox ci diggante Ada Fass ak Tapha Mbeur muy boo xam ne ñu ko bëggoon tëgg bëri na muy ñaari xale yoo xam ne tamit kujja dox na ci seen diggante ci wàllum làmba parce que loolu day am si làmba adversaire adversité dafa yàgg si làmba Ada Fass ak Tapha Mbeur loolu moo am ci seen diggante ba tey fàllu tëgg ko muy ñaari xale yoo xam ne ku ci nekk maanaam ah, Euh, fi mu nekk nii am na foo bëgg a dem am na loo bëgg te itam ku ci ne quartier ba nga dëkk bu dee ah, Tapha Mbeur la waa parcelle dañ ko gëm yaa ngi dégg di ko xool bët ba ñuy xool Modou Lo bu dee Tafa euh, Ada Fass la waa fas itam bët bañ doon xool Tafa Gueye ca jamono yu njëkk ya ba Tafa Gueye di doon Tafa Gueye nekk biir écurie fas bët booba la ñuy xool gi nga xam ne nii moom moo di Ada Fass kon defe naa Fallou Ndiaye la wit utam boobu bés la ci bés yi waaye ñu ne déet ne waay ba tey ci stade Iba Mar Diop boobu Mohamed Diop nga xam ne daaw combat bi dàq ci saison bi wala combat yi dàq ci saison bi su jumul ci côté bëre ak xeex bokk na si ñaari combat yoo xam ne mënoon naa leen citer mooy bébé Diène ak ki nga xam ne moom mooy Fourier te Assane Ndiaye tëggoon ko waaye bokkoon na si jam téere ak jet li te Mohamed Diop mi tëggoon ko ñaari combat yi bokkoon na si combat yi dàqoon arène nationale ci côté bëre ak xeex yàlla dogal euh, Euh, Mouhamed Diop borom Ndiaye production moom moo tëggoon ki nga xam ne ni moom moo doon ah euh, mburum kayaar moomu may wax léegi muy jëm tiiri ak ki nga xam ne ni moom mooy jët li bu Pikine yàlla dogal jëm tiiri am ca ndam moom Mouhamed Diop moomu na moom moo ñëw pour le 27 juin indi combat bu neex combat espoir bu doy waar ndax ku ne xam ne ne bébé julde ah ci làmb la bokk di doomee bal nekk lu Seex ba te itam ne ci ay quelque teglante ay quelque défaite tey mu bëgg jógaat ñu jox ko Youssou Ndour boo xam tamit dafa bëgg a génn ndax Youssou Ndour ku ne xam na ne doomu Balla gay la Balla gay numéro bi gaañ yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana nekk école Balla Gaye bokk ci ay liet naaw Balla Gaye 2 actuellement di xale boo xam tamit waa Guédiawaye yaakaar nañ ko mu bëgg a dem fi Balla gay dem bébé julli mi tamit di doomu Bawol bëgg dem fi Tapha Tine dem kon le 27 juin Mohamed Diop moom moo ndi boobu combat muy combat espoir bu neex ba tey bu nu continuer ak yëglikaay bi Iba Mar Diop googu nga xam ne mooy stadium bi ministre bi ubbi na ko yëglikaay bi li mu ci gis nag mooy xëy na pour bëgg gën a alléger arène nationale parce que tamit c'est normal man pour man dama naan stadium Iba Mar Diop warul tëj ci làmb dafa war di dox parce que am tey làmb yi li mu bëree pour yi nu ñu bëree ak stadium Iba Mar Diop ni mu mel si làmb defe naa nekkul foo xam ne làmb dafa war a raaf kon ministre Matar ba loolu mu def tamit ñu ngi ko ciy jërëjëfal parce que am na solo trop trop trop trop parce que itam ah euh, olof na ku yokkul yaa wàññi te Iba Mar Diop boo ko joxaatee promoteur yi tamit vraiment ah def nga lii waa làmb soxla woon ah parce que loolu ñëpp a ko soxla woon euh, Gomis ba tey bu ñu continuer ci biir sunu làmb CRC bu Fatick. mandat wu ki nga xam ne moom moo doon Sambary Dione mooy président CRC ba yokkaat nañ ko ba 2022 am ah, mel ni kon ña ko joxoon ñoo ko wóolu woon rek loolu nag moo am solo kóoluteef moom moo ka wóolu kaay leen wóolu ma ñoo la wóolu da kaa gën a wóor kon xam naa ñoom waa Fatick ñoo ko wóolu ba dénk ko li nga xam ne ni moom moo doxa joxaat ko beneen mandat ba 2022 moom Sambary euh, loolu mooy li fa am ba tey Fatick googu ba fa géey mi nga xam ne moom mooy coach su Fatick ci wàllum équipe ah ñu jëm ci drapeau solidarité nga xam ne at yi daf ko ñàkk te tegale woon ko ay at yu bëri di ko jël ba fa nag la mu wax ci sunu làmb daal ne na incha allah rabi li mu bëgg mooy fexe ba conquériraat drapeau bi maanaam jëlaat ko indi ko Fatick ba fa loolu mooy bëgg-bëggam ba tey drapeau solidarité boobu cees ñu ngi ci regroupement fermé depuis démb tànn nañ seen ay mbër ba pare seen cinq lutteurs yi leen fas yéene défendre incha allah rabbi ca kaw Kaolack bokk na ci Libidor bu Kayar ñu naan ko ab Ablaye leen dooy moom mooy seen plus de cent vingt kilos ñu ngi fii ay photo ñu gis leen waaye ba tey ci mbir moomu wala duñ ko sori ndax ku ne xam na ne weekend après Korité gi lamb simple dafa takkar naa son waaye am na ci mbir moo xam ne marqué na ci empreinte am muy Ibou Ndiaye Obali bu parcelle bu joof yor tamit su la neex ndax doomu joof yor la ak quatre drapeaux yoo xam ne gàddu na remporté na ko gagné na ko ci quatre jours ak deux millions yoo xam ne dugal na ko poosam mu mel ni kon daal ah lambi simple jin saf na déggu neex na déggu mis ndax nag deux millions ci quatre jours na na xariwul de nga dugal ko sa poos neex na waaye nag dafa am lu koy maye waaw ku ne xam ne ne làmb yombut moom da nga entraîné bay bëgg dee da nga muñ lu bëree bare bare bare bëri kon félicitation à Obali ci loolu nga xam ne def na ko moom Ibou Ndiaye Obali di mbër mu saf xorom tamit amateur lutte simple yi bëgg ko euh, drapeau chef de l'État boobu ba tey euh, dañ si ñëw ak nga xam ne moom mooy waa Sédhiou ñoom tamit génne nañ seen cinq yi nga xam ne ñoo leen fas yéene défendre fa nga xam ne moo di ca Kaolack yëglikaay bi moo xëy tey ñëw indi lu ñu ko record nag moom tey xëtam mu njëkk la ca fes lenn la maanaam bu ñu jógee suñu làmb recours lañ jëm la fa fes lenn la mooy guy gi rëg-rëg waxoon nañ ko dem ci suñu làmb tey record ñëw na ci nee na jàkkaarloo bu njëkk dimaas lay am laa guerre des moom maanaam sànni tey kàddu ku ne xam ne dafa kaddu saf dina fa am ndax la leen wax démb rek guy géeg rëg-rëg amu ci koo xam ne ni dinañ la jox micro ngay làqa-làqal la ngay wax ndax ko ci ci li nga bëgg a wax di nga ko wax sa morom te xam naa ne combat bii kuñ ko yombal ci ñoom ñaar ña la ko yombal boo ko ñàkkee ñoo la ko xañ ndax rëg-rëg xale la bu am fu mu bëgg dem amagul defetu arène te itam li ne ci bëtam wala li ne ci xolam ak bëgg-bëggam mooy mu nekk roi des arènes te nekk na mbër moo xam ne képp kuy connaisseuru làmb xam nga ne rëg-rëg mii su continuer ci ni mu nekkee ëllëg ah day bokk ci ñiitee làmba loolu mooy moom la wane parce que tamit li nga wane lañ la mën a waxal ñoo wax leneen loo lu ñu gisul ah man boog du ko def ki ci des muy guy gi guy gi dafa nekk mbër moo xam ne dafa jar a bàyyi xel ndax mën nga nekk xale ne ci sa lancé dëkk ko ñu ne la yaa ko man nga ñëw moom fu mu jaar ak yow def na ko fi ak ay xale la preuve digganteem ak Ama Baldé kenn fàttewu ko muy mbër moo xam ne mbër mu dogu la moom guy gi te itam nag bu liggéeyee ba taxaw néewul kàttam te itam tëlewut bëre parce que ñu bëri dañ naan guy gi ci bëre mais guy gi dafa mën a bëre ndax dem na bañ koo ko convoqué équipe nationale moom guy gi la ko jëlee INSEPS de Thiès xam nga lan la lekk gu ëpp ba ñu peese ko poids ba gaa yi dàqu ko kon kooku mën na bëre te li may wax Modou Anta bu Thiès boo ko laajee dina la ko wax ndax gis naa seen photo ñoom ñaar ñu nekk gën a nekk ay xale nekk Thiès kon defe naa ne mën na bëre kon rëg-rëg na xam ne adversaire de taille la am guy gi na xam ne adversaire de taille la am muy xale boo xam ne bu bëgg dara la buñ fa jógee Equivox la ñuy dem ak le neuf ku ne xam ne ñu ngi koy waajal euh, gis nañ fa mbër bu ñuy wax alias Biram muy tëkku adversaire am di caatu ngéwél di ko wax la mu ko fas yéenee def bu ñu yeggee ca combat ba waaw moom moom amul sax ma dem te ñëw moo tax nag ku dem Equivox TV da nga fa gis alias Biram loolu tey moom moo fi dikkoon ci yëglekaay yi di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm xam di ñaan jàmm Sénégal di wax ne tamit weekend bi vraiment bëri nay programme mu làmb ndax ku ne xam ne ne suñu xarit jamaykee mu nga Gambie ak fasa fas face leket baar ak France si dimanche bi dimanche boobu tamit face a face comme ni ko waxee ca TFM rëg-rëg guy gi waaye ku ne xam ne ne suba ci samedi ji Yékini mu nga ñaaxar ak euh, ay millions yu bëri yoo xam ne teg na ko fa mu mel ni kon làmb ji fi mu nekk nii sàjji na idaali ñu ngi tamit fa yéene ñëw ak benn jàkkaarloo yooyu yëpp ci pareem muy loo xam ne moo lay wan ne kon làmb ji moom fi mu nekk nii maanaam làmb ji sax Gomis bu nga couvrir lépp lu méttee méttee parce que lii daje dafa bëri mai loolu lépp làmb juy dox la rek ñu ñaan yàlla affaire yi gën a dox di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñu suivre à travers Equivox TV di balu ñëpp àq moom bu ñu fi wax bu déplacé wu wala ñu def ko rek jàpp leen ne nit kuy jéem la jaam la te jaam moom ah yàllaa ko moom te ku ñu moom nag des fois nga wax juum waaye bu ñu juumee dañuy jéggulu di nuyu sama tailleur bi ko Couture zone bi moo fi jaar waaye di nuyu kenn koo xam ne mention spéciale laa koy wax muy Lamine Seck su ma seex bu Lutte TV ma ko fàtte ci dara parce que li tax mooy ah euh, am na loo xam ne ki nga ko seqal yéen ñaar rek a ko xam ak yàlla waaye Lamine yàlla na ko yàlla fay maa ngi koy bàyyeek yàlla barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na la yàlla aar sàmm la maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax doomu looro boobu di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu suivre les reporters tamit yi nga xam ne ñoom laa bokkal mikro maa ngi nuyu ñëpp rawatina le président Bour Guéwél ñoom ñëpp duma leen fàtte ñoom Fadel pël bu rafet hmm? Fatma ma Pape Maguette Ba Moodu Anta moom tamit tudd nañ ko drapeau yaakaar naa le 27 juin ñu bàyyi si xel du Anta sans frontière di xale boo xam tamit bu am yar bu joxe cër la ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom càndum ah sumali naa di sumali sëriñ ñoom ñëpp sumali naa di sumali Medina Diop ñoom Sita ñoom tout le monde Laat Diop fàllu leeral ah Ndey Mbàkke bu Leewtoo ñoom tout le monde ah ak ki nga xam ne ni moom moo di kër Diop tamit nekk Leewtoo ak Xaadim borom kar appi nuyu naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di jox dig daje beneen yoon incha allah rabbi